asalaamaaleykum la presse asalaamaaleykum nit ñi ma dalal fii tey muy le mouvement avenir social et développement di ci jiital waa liggéey mi ak jigéen ñi mu àndal ak jeunes ñi mu àndal di leen wax ne tey de bis boo xamante nii dañ koy immortaliser parce que dafa am fu ngeen nekkoon ngeen jóge fa ñëw parti Teranga Sénégal pour jàppale ñu ci liggéey bi pour jàppale suñu candidat le président ki nga xamante ni moom la fi jiital muy Amadou Ba ñu jàppale ko ci élection présidentielle yi février 2024 yéen nag mu nekkoon mouvement bu ràññeeku à Touba fi la ci HLM yi ñëpp xam nañ seen taxawaay ci Touba ñëpp xam nañ développement bi nga xamante ne nii Touba moom lay woote ni ngeen ci taxawee seen mouvement bi tey bu ngeen jógee ñëw ne dangeen di jàppale la Pàcc Teranga Sénégal ñun du ñu am lu dul rafetlu ko du ñu am lu dul am ci contentement boo xamante ne nii kenn xamul fan la yam parce que nag képp ki def politique da nga soxla addition sa mbooloo du yokk waaye soxla soxla woo soustraction mbooloo mi wàññeeku donc tey bu ngeen ñëwee gën ñoo dooleel dañuy gën a am fit gën a am yaakaar ci li ñu sumb li ñu sumb mooy ñu def lépp ba élection février 2024 Amadou Ba muy candidat bi nga xamante ni la coalition Benno Bokk Yaakaar moom la jiital ñu jàppale ko mu jàll au premier tour loolu nag pour ñu mën koo def il faut que ñu xam fi jëm il faut que ñu xam luñ bëgg parce que politique bi wax dëgg yàlla mois yi passé jaxasoo na lool metti woon na lool gis nañ fi lu nekk ay nit ñu fiy dee ñu fiy gaañu yàq ay bien jàmbur loolu du politique politique c'est un débat d'idées te ñun am nañ yaakaar ci suñu candidat bi muy Amadou Ba que buñ ko jàppale surtout le département de Mbacké bi nga xamante ne nii électorat Mbacké dafa am doole am solo booy xool à part Dakar c'est le département de Mbacké qui polarise maanaam li ëpp ay votant ci Sénégal loolu nag ñun. waa département Touba ak la ak département Mbacké département la commune de Touba ñun dañ ci war a bay suñu tànk tubéy ba bu président Amadou Ba bu ñu ko falee en 2024 li ñu bëgg fii département bi ñun ñu mën ko am parce que nag nit boo ko jàppalee tey amal ko résultat yi positif résultat yoo xamante ne nii maanaam kenn amul lu ci xel ñaar yaakaar naa tey suñu demee bay récompensé leen xalaat département de Mbacké donc leen wax ne yéen ak ñun ñu fi nekkoon ci parti bi ñoo bokk yam parti bi ki ñëw tey ak ka nga xamante nii moo ko moo ko sos ñoo bokk yam li am solo mooy nañ bokki ay idée maanaam di songandoo di daanandoo liñ bëgg yaakaar naa loolu waa parti Teranga Sénégal bëgg loolu la ñun ñii bëgg ñi nga xamante ñu ñun ñoo nekk fii ci département de di leen wax neen fii seenu kër la fii seen kër la ñu ñëpp ñoo ci bokk yam tàllal na suñu loxo ñu ñëw ànd liggéey ba président Amadou Ba liñ bëgg ci moom mu am ko deuxièmement liñ bëgg suñu département bi ak la commune de Touba ñëpp ñu mën koo réussir à 100 pour cent loolu laa amoon ci lu may wax maa ngi leen di gërëm di leen sant ba ba ngeen xippee ñëw ànd si ak ñun waa Teraanga Sénégal ñoo ngi leen gi sant di leen ci gërëm leen wax tàllal leen seen suñu loxo nag pour ñu ànd ak yéen liggéey ak yéen. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo teew fii ci jotaay bi euh, Karim Gadiaga nag mooy wax ci turu Massette ci njiit ci njiitalu Serigne Cheikh Waly euh, Guèye nga xam te ne nii moom moo créé woon mouvement bi ah kàddu yi nag kàddu yi sant la ndax. mouvement bi euh, depuis bi ko grand cheikh créé ba nekk si mi ngi def ay résultats yoo xam ne yu positif lay doon voilà yi jàppale jigéen ñi di jàppale aussi euh, jeunes yi man nag may wax ci turu jeunes yi waaw di fëttali aussi kan suñu suñu adhé suñu suñu adhésion ci euh, parti Teranga Sénégal waaw loolu nag ñu ngi ci soñaat bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi ci mouvement bi di la ci woo que ni ñun actuellement. sunu euh, sunu liggéey ñu ngi koy jaarale ci yi nga xam ne mooy parti Teranga Sénégal ci jàppale gi nga xam ne moom itam euh, ak moom bëgg-bëgg bi nga xam ne am na ko ci élection 2024 yi lépp loo xam ne mën nañ ko ci wala lépp loo xam ne nii euh, suñu doole mën na ko jàpp ci ñun ñëpp ndax jàppale parti Teranga parti Teranga Sénégal defe naa aussi mooy jàppale mouvement bi parce que mouvement bi loolu rek da bëgg li mu bëgg mooy ku ko defal ay financement ku ko jàppale aussi ci ci nem ci ci ay bëgg-bëggam waaw te ñun li ñu bëgg du dara lu jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi aussi sonn nañ soog bëgg nañu liggéey ndax chaque fois chaque jour dañuy xëy fajar teel di dem ci marché yi di dem ci luuma yi di liggéey di sonn jeunesse aussi la même chose chaque jour ñi ngi gis ay jeunes di quitter dëkk bi di dem ci gaal ñeen ñenn di jaar Nicaragua di ci am ay problèmes yoo xam te ni ñëpp a ngi koy gis ñëpp a ngi ci teg seen bët. léegi nag ci noonu la nga xam ne ci lañ amee initiative bu mouvement bi mouvement bi. képp koo xamante ni nii xam nga ko wax dëgg yàlla sa xel du defe naa ne dootul nekk ci jël ay gaal wala dem ci Nicaragua bi ndax mouvement bi mi ngi def liggéey bu am solo liggéey boo xamante ne nii képp ku ko dégg sa xel dina dal sa xol aussi dina sedd voilà léegi nag euh, ñu ngi jëm nag ci li nga xamante ne lu am solo muy élection yi nga xamante ne nii mooy war a am 2024 ñuy jàppale euh, parti Teranga Sénégal bi nga xam ne moom tamit ci muy soutenir mooy le président Amadou Ba que bu ñu demee ba ci élection yi incha allah rabbi ñu fal ko ci premier tour bi. soxna Anta Niang la di rafetlu jataay bi comme ni ko ñi fi jaar waxee rek mouvement moom li ko tax a jóg mooy ñëw rallié wu jàppale parti Teranga parti bi nga xam ne docteur Ablaye ñaan moo ko jiite. léegi ñun suñu yittee nag mooy ñu jéem a jàppale suñu président Ablaye Niane 2024 ñu fal Amadou Ba premier tour élection yi. di wax nag si jigéen yi waa Touba jafe-jafe yi moom bari na mais comme moom gis nañ solution bay ba ñu xam ne rek docteur Abdoulaye Niane mooy suñu solution te ni mu doon suñu solution mooy dañ ko bëgg a jàppale ñu falaat ñu fal Amadou Ba premier tour bu ko defee ñun jigéenu Touba ñu xam ne ñun tamit dugal nañ suñu loxo ci xeex bi nga xam ne moom la Abdoulaye Niane di xeex pour développement dëkk bi loolu daal moo doon suñu yitte ñoo ngi ci woo ñëpp nag di leen wax ne jël nañ suñu engagement fas yéene jàppale Abdoulaye Niane fal Amadou Ba premier tour incha allah rabbi ñi ci woo ñëpp nag li ñu wax nag tamit ñoo ngi koy gën a joxe gën a joxe suñu engagement daal gën a dëgëral suñu engagement daal. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di nuyu ñi nga xam ne nii ñoo jaar ci yéen di ñu seetaan euh, di am mbégte bu baax ci kàddu yi ñu jël ak taxawaay bi ak teewaay bi fii tey euh, di mouvement avenir social et développement. yàlla dogal xañ na ñu créé ko nekk ci cat li waaye nag du mérite waaye lu yàlla dogal ni xañ na ci ñoom lay jaar ñi ñu àndal ñu teew ñi ñoom ñooy bureau mouvement bi ñoom ñoo ko composé mën naa ni ñoom ñoo koy doxal xalaat yi ñoom ñoo ko am ñoom ñoo koy génnee ah, daanaka xañ na kon dañu nekk ci kanam yor ci aw tur rek waaye liggéey bi li ci ëpp ci ñoom ñi ñoom ñoo koy def mooy muy sëñ ah, xaadim mi jël kàddu léegi soxna Anta di secrétaire bi soxna soo Soda Guèye mi toog moom tamit nekk ci biro bi di ko actif di ko jàmbaare lool ci mouvement bi soxna Ndey Jaay nga xam ne moom asalam la dëkk euh, moom tamit nekk ci bureau bi euh, soxna Fatou Mbaye dëkk Tindo di waaw moom tamit di jàmbaar lool bokk ci ñi nga xam ne aussi ci bureau bi lañu ñu bokk euh, di ci am ay xalaat yu rafet soxna Xadi mi moom teewal fi soxna Xadi Baara di jàmbaar moom tamit ci mouvement bi am ci taxawaay bu am am solo suñ Xaadim Ndiaye moom tamit bokk ci bureau bi nekk ku actif koo xam ne ni aussi ay xalaat yu am solo lay yor ah, ak lu jëmale mouvement bi kanam ak lu koy yokk moom mu teewal fi ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci côté corniche bon mouvement bi xalaat bi ñu amoon ba créé ko ba mu doon mouvement avenir social et développement mooy euh, dañu yàgg dañu yaroo ci dëkk bi màgg fi politique aussi jaax ci parti am expérience boo xam ne nii xañ na jot nañ ko xam gis tamit jafe-jafe yi nga xam ne nii ndaw ñi ñu ngi koy dund jigéen ñi aussi di ko am parce que heure bu nekk dañ koy jóg ñun di voyage di génn di dajeek jigéen ñi yenn heure yi di xam euh, situation yi ñuy dund ak programme bi ñuy li ñuy daj ci loolu la ñu amee initiative créer mouvement bi muy mouvement avenir social et développement loolu tour la woo xam ne ni boo ko déggee di nga xam ni euh, lépp lu jëm ci wàllu dimbali nit ba mu jógee ci benn dem ci ñaar nit ñi développé parce que bu nit ñi développé rek dëkk bi développé te ñun gëm-gëm boobu la am dañu war a dañu gëm ni développement ci nit ñi lay doore waaw dañuy fekk foo xam ne dara nekku fa ñu fexe ba def fa dara ba mu doon loo xam ne nii ñëpp dañu ciy gis seen bopp waaw yàlla dogal na xañ na taxawal nañu ay bërëbu liggéeyukaay ci dëkk bi di ci former ay ndaw ñuy liggéey di góorgóorlu ca façon bi fu ñu doole yam ñu yam fa bëgg nañ mu yokk saa su nekk ñu ngi ubbi ay buntu di créer ay Euh, bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne nii day jëriñ nit ñi moo xam góor ñi la moo xam jigéen ñi la mag ñi ak ndaw ñi euh, yàlla dogal euh, ñoo xam parti Teranga Sénégal rencontré ay kilifa waxtaan ak ñoom yàgg leen aussi suivre ñu gis ne aussi ñun yoon bi ñu nekk nii méngoo na ak yoon ñoom bi ñu nekk ñu ñëw fas yéene ànd ak ñoom liggéey jàppale leen fas yéene jàppale itam candidat bi nga xam ne nii moom la ñu am comme mille 2024 di président Amadou Ba. waaw Cheikh Wali nag moom Cheikh Wali Guèye ku ko tudd peut-être dina ñëw dinañ dinañ dinañ dina doon tur woo xam ne nii ràññee nañu ko biir Pastef dugg nañ fa am 2017 ci engagement bu ñu amoon boo xam ne kenn convaincre ñu woon te bu doon démb la aussi engagement boobu la ñu amaat rëccu ñu dara lu ñu defoon ci ki ñu engagé woon ngir jàppale ko muy président soo ko tey mi ngi ci ay jafe-jafe ñu ngi ñaan yàlla jële ko ci jàmm ci jafe-jafe yooyu euh, ba ëllëg mu mën a bokk aussi ci ñi nga xam ne nii dañuy defar réew mi ndax yéen a rafet rek la am te ñun duñu dañu doon ay nit ñoo xam ne nii duñu wax lu ñu gëmul yéen a ju rafet la xam ci moom moom la mus a xam ci moom aussi waaw xañ na àdduna moo tëdd nii waaye jàppale ànd ak Teranga Sénégal euh, jóge Pastef nekk Teranga Sénégal euh, doonut loo xam ne nii déli la parce que ci réew mi ñun ñoo ko bokk Euh, te ñu ay noonu aussi gis-gis yi mën na wuute mën nga bokk ak gis-gis nit tey ëllëg seen gis-gis wuute loolu wàññiwul dara ñun duñu wër ennemi ci politique parce que doxewuñu doxin boobu euh, doonuñu nit ñoo xam ne dañuy créer ennemi wala ñuy xas nit ci politique bi ñuy nekk foofu yàgg nañu rencontré ay homme politique yoo xam ne nii bokkuñu woon camp wala ñu doon bokk ak ñoom ay panel mais yàlla dogal na mosuñu am jafe-jafe ak kenn mosuñu xuloo ak kenn ci panel mosuñu werante ak kenn mosuñu dem yéeg wàcc parce que du loolu lañuy ñuy doxe ñun débat de idée la ñu xam mooy que ne fi ñu nekk ak lu ñu nekk dinañu jéem a défendre loolu ak programme boobu képp koo xam ne ni aussi dañuy wax yow te déggoowuñ ci kàddu dañuy fexe ba déggoo suñu mënta déggoo ñoo seq jàmm doxin boobu lañuy dox mais du ñu créer ay fa ñu nekkoon filistré wu maanaam du nit koo xam ne dangay filistré wu ci mbir man loolu bu ma dalee sax peut dama koy denc mais du doon lu may wane wala may affiché wu dafewu ma noonu bëgguma doon kooku koo xam ne damay affiché wu di wane nii dama lii damaa metti lii laa bëgg non non gëm-gëm laa am sama gëm-gëm moo may yóbbu ci lépp loo xam ne dama ciy engagé wu su ma nekkee ko wu nag au moins deux damay dem ba jeex waaw noonu laa mel mais du ma doon koo xam ne nii damay damay damay maanaam damay mer ngir fayu ko waaw mer naa ci bërëb dama fay jóge dem non non waaw sama xel laa àndal ak sama conscience tranquille waaw créer mouvement mouvement bi dem ba ma gis ni war naa ànd ak Teranga Sénégal pour liggéey parce que yoon bi nga xam ne man yoon boobu laa nekk ak ñi ma àndal méngoo na ak li nga xam ne moom la parti Teranga Sénégal doxee ñu ñëw adhéré wu ànd ci liggéey bi fas yéenee bokk xalaat bokk jëfi bokk jëm-jëm fas yéenee ànd ak candidat bi nga xam ne moom la ñuy soutenir 2024 ñu jàppale ko ci anam bi nga xam ne nii anam boobu lañ ko bëggee di woo ndaw yi Tuubaa yëpp di woo góor ñi di woo jigéen ñi ñu ma ñu maase doon benn waaw doon benn aussi fi ñu jëm aussi waaw ñu bañ ko ragal ñu bañ ko ragal te xam ne aussi mën nañ ci am ay résultats yu positif ay résultats yu gën rafet nañ ci njort aussi te am nañ ci yaakaar parce que Sénégal moom ni ñu koy waxee ni benn bopp la dañ ci ci ci li ci gimiñ niñ koy waxee aussi dañ ko war di jëfee noonu waaw mais souvent rek dañuy doon loxoon xam dañ koy wax mais jëf ji tey xaw a des euh, kon yaakaar naa li ñu dajale foon fii euh, loolu la di soññaat rek sama mbokk yëpp nga xam ne nii ñi nga may seetaan xam turu Cheikh Waly yàgg ko ràññee yàgg ko xam euh, ñu xam ne Cheikh Waly euh, mu ngi ànd ak parti Teranga Sénégal fas yéene liggéey ak moom ci dëkk bii di Touba ak li ko wër fas yéene ànd ak moom ci élection yi jàppale président Amadou Ba loolu mooy doon kàddu yi nga xam ne nii bëggoon nañ ko yëkkati fii di sant aussi ñi nga xam ne yëpp ñoom la ñu àndal tey jii di bureau bii nga xam ne nii moo composé mbooloo mouvement bi kenn ku ci nekk mbooloo topp sa ginnaaw te incha allah mois de novembre bi ñu jëm bëgg nañu def benn programme bu mag boo xam ne day dajale mbooloo mouvement bi yépp bu ñu jàppee jour bi dinañ leen ko yëgal yéen waa presse bi dinañ leen wax lieu bi ñu koy defee ngeen ñëw fekke ko ñu mën a xam doole bi nga xam ne mouvement avenir social am na ko ak taxawaay bi mu am ci dëkk bi di wax ndawi dëkk bi nañu waaj te xam ni mouvement bi dina leen dimbali dina leen jàppale ci lu bëree bëri incha allahu rabbi parce que ñu ngi ciy xalaat te fës nañu yéene taxawal ay bërëb ak i petite entreprise yoo xam ne nii dina jëriñ ndaw ñi dina jariñ jigéen ñi surtout parce que ñoom dañoo spécial ci mbir mi ndax jigéen ñi ay jàmbaar lañ développement bi mën naa ni bu jigéen ñi sax développé lépp mën naa développé ndax ñoom ñooy dajale seen weccet di ko jox seen ay doom ñuy tukki wala ñuy dem fu ñu bëgg dem ñooy génn ñooy dem ci marché yi ñooy dem ñooy dikk kon ku leen jàppale rek dèjà réew mi def yi day développé te ñun dañ ci bëgg a dugal suñu bu baax a doo bëgguñu mu doon ay waxi kese mais dafa dafa ñu bëgg mu ànd ak ay jëf te jëf yooyu ci suñu kanam la nekk te lépp loo xam ne nii ay possi ay résultat yu ci am la incha allahu rabbi nit ñi dinañ ci tegandoo euh, seen bët képp koo xam ne tàppe nga ci internet bi mouvement avenir social et développement moo xam foo ko mën a tàppe di nga gis résultats yi nga xam ne nii xëy na am nañ ko ak pro ak affiche yi ñuy partagé ak programme yi ñu am ak fi ñu jëm di nga ko gis bu baax a euh, kon engagé wu nañu ci parti Teranga Sénégal engagé wu ci jàppale président Amadou Ba ci élection yi ñu jëm 2024 te doonul loo xam ne nii nag dañ koy def ngir xaar am lu ñuy xaar déedéet mais dañ koy def parce que lu ñu gëm la waaw li tax ñu di ko def aussi ëllëg duñ ci rëccu dara bu soobee yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, xanaa di sant rek suñu kilifa gi ñu àndal moom bëggul génn ci image yi euh, muy sëñ Gallo Mbaye di koo xam ne nii fu nu fu nu taxaw rek fu nu jëm rek dinañu gunge di ñu ñaanal di ñu bàyyi xel bu baax ñu xam ko ci ay at yu yàgg waaw ah, mu nekk nit ku ñu marqué koo xam ne defar na suñu ay rak yor suñu ay doom tey jii ah, di def ngir jëmmi Serigne tuwaa di liggéeyal Serigne tuwaa ci dëkk bi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér lool te ñun liñ ko war mën a taxawoo ñu taxawoo ko parce que am ñu yéene bu rafet ci ñoom ci moom te incha allahu rabbi bëgg nañ ko réaliser ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal.